am na solo di fàttali ne numéro bi 77 78 107 66 73 ak 76 577 74 34 pour ñi nga xam ne ñoo bëgg a jokkoo ak Serigne Makhtar Khassida borom tawfeex alors Serigne Makhtar Khadi dégg naa nag ngay dal sama waa ji xaas. Abdoulaye Diop xaas vraiment nag Serigne Abdoulaye Diop mooy capot Serigne de. xanaa yow doon sa capot. Ah, nangu woo amoon na sama capot parce que jàngalu ma xam-xam xamante wuñ ñoom doon na sama sama capot ah parce que mu ngi def ay preuve ci ci ci ci ci ci nit ñi gars yi di ko gis et puis nekk na sëñ boo xam ne également euh, turam fi mu yegg. Mhm. Euh, voilà quoi macha allah. te sëñ ay nag man dafa dafa bëri ay mbir de. mais man est-ce que yow mën nga ma génneel ci internet bi fu ma ko dale xam nga journaliste yi yéen yéen yéen yéen yéen yéen tas réew mi non non tasuñu réew mi sax waaye parce que yow boo jékkee-jékkee posé ma question ni ma Ablaye Diop xaas da nga ko wax non dafa mel ni Ablaye Diop xaas dafa mel ni yow da nga d'accordul ci ci mën-mën ñi mu am wala ci ci xarañteef bi nga xam ne pratiquement moom lay moom lay jëflante ak ak nit ñi parce que nag mhm. am na am na foo xam ne moo teewoon na làmb bi de lu mu wax ne noonu lay demee noonu lay demee am ne sëriñ si nga xam ne si bëri dégg naa ay courtier lañ tamit ah, dañuy dañuy dañuy dañuy wanewu le matin hmm. guddi gi ñu ñu def sous-marin dem seeti ko am ah, man na nekk de weddiwu ma ci dara mais ñoo koy def ñoom la concerné man mosuma ko gis mosuñu bokk jotaay bu baax du nuyu sa soxna soxna Sumbulu hmm. vraiment di def lu am solo ci série bété bété hmm. di ko encourager di euh, voilà di di ko encourager loolu rek lañ mën a wax parce que c'est une grande actrice euh, très professionnelle Soumboulou encore une fois di leen di leen bëggee bu baax alors sëñ Xaas également Abdoulaye Diop Xaas ñu koy ñu koy nuyu encore une fois waaye daal balaa nga may wax loo xam ne. Mhm. dina fi teg man man man man man man nga woon ma preuve. non non non man boo tamit du tax ma weddi sama waa ji. non man weddi moo ko de mais man li ma wax. xam naa ne sax dañ la ko xam naa ne sax dañ la ko informé pour nga waajal ma. léegi lan nga wax ci xaas. wax ak fa ma ko doon waxee moo tax jamono jii nit di wax na nga ci bàyyi xel. Mhm. li ma wax ci moom. mooy capitaine bi yow doon seen capitaine yéen. waaw mën na nekk ba tey. nangul nag amut amut jafe mais li ma ragal kaala bi nga takk nii sax mu jékki-jékki fa mu toog nii fi mu ñu seetaan nii mu transformé ko daf ko jaan. ba tey mën na nekk. xaas ñu ngi lay nuyu dama ni. man li ma wax weddi mu ko de. Hmm. yaa ngi dégg. dama ni dama ni dama ni dama ni. mu ngi doon kaala ba léegi. El Malick euh, bu yàq <laughs> bu yàq say bi. Ah, bu yàq say bi sama bañkat sama waay daf bëri bagage. day bañkat mu jékki-jékki rek kaala bi xam nga. El bu yàq sama émission bi nekk nekk leneen. man Abdoulaye Diop Khass musuma ko gis musuñu gisante. mais li nga wax ci moom lan la. bët ak bët suñu bokk toog non man dama wax ni. Mhm. lim def. TFM mooy jël keesu suukar xotti kees bi attaaye ci. kiraama la. ak toj biteel nit jéggi ko daggul. loolu loolu loolu loolu su ma ko defoon man mënu ma waaw mais waaw ko ko mais danga maa may diglu ma àggale léegi yow balaa ngay dugg ci loolu yow wan ñu preuve waa danga may diglu ma àggale ba pare acca dama ni loolu mu def mhm. bokkut nit am problème wala am soxla wala mu am lu ko jaaxal mu ñëw wax la ko nga def nii yaa rabbi mu ngi faj soxla jaam yi de mu ngi leen di ñaanal de xam nga da maa posé question la yore xam nga dang nga maa euh, posé invité da nga maa posé question da maa posé ay rendez-vous da question te diglu woo ma man nag bëgguma non non boobu boobu non non non soo ma posé question ci kaw nit man daluma ci kenn yaa ma laaj may leeral yow kay yaa ma digluwul waaw boo ne boo ne ay ay ay këyitu xaw ma ataaya ak ay xottu bi te noonu la demee noonu la demee mais am na keraama xam-xam la noonu la demee yaa ngi dégg xam-xam la du xam-xam ñi ko ñi ko xamul xam-xam la hmm. ñi ko xam du xam-xam ci ñoom xeet xeet yooyu li ma li ma li ma yow wan ñu preuve rek maa ngi ñëw fii mooy plateau preuve maa ngi ñëw plateau bi sëriñ yi naan mën nañ wala mënuñu wala ñuy lëmbee dëkk bi plateau bi mu leen di xaar pour ngeen wane. li maa ngi ñëw plateau bi nag yow war ñu parce que waaw maa ngi ñëw dama digg ma àggale. man loolu doonu sama domaine. ah nekkoo nekkoo. maa ngi ñëw maa ngi ñëw. maanaam mënoo loolu. yi ma ci làq dafa bari ba ba ma ko waree jàng dama koo jàng mais dama la bëgg a tojal xamal la ne la gis nga loolu nuróowut ak nit ñëw wax la soxlaam. yaa ngi dégg ngi jël say loxo ni yaa rabbi diwu nangam diwu nangam diwu nangam xam-xam la yi ngeen di ñaan lan moo leen garanti lu xam-xam dafay nangu te ñaan ñaan ñaan wuyu na trop ñaan mun nañ la may comme mun nañ la bay a may lu leen wóor na ñaan yi day day man li may ñaan dama am yaqin ni day nangu man ah suñ borom mm-hmm. fay saa daani Hmm? Hmm. suñu borom moo waxoon yonent bi ni ko waxal sama jaam yi saa bu ñu wooyee ma wuyu leen. waaw ah, léeg-léeg du te ñaan te ñaan mooy nga nawet julit yow jàmm ji nga am ba toog fii di man di ma dal. Hmm. bu du woon ñaan. kon réew mi du agsi fii. ñaan. mooy mooy li nga xam ni nii. lépp lu jafe ab jullit te mu jaaxal ko ñaana a koy lijjanti. tey nag di nga ma di nga ma di nga di nga ma dugal ci xeetu waxal ci xaas bi ci xam-xamu xaas bi di nga ma dugal dem dëkk bi ah te comme li may wax rek ku fi bëgg a wax leneen ni xaas amul xam-xam wala leneen wan ñu preuve ne yow nga wala El Malick xaas amul amul xam-xam ah, nangu nga kon balaa balaa waxuma di remplacer wu nekk jaan wala affaire yooyu nangu nga waxuma ni xaas amul xam-xam non mais damaa wax ni damaa wax ni xeet yooyu nga xam ni moom la def mhm. ay karaamatul ayni la rahmatul ayni mhm. moom la bokkut ak ñaanal nit soxlaam yeneen tàcc la yu bokkut mhm. waaw léegi nag yow comme que njettamal nga ma nii mhm. yaa ngi dégg ci daar daar bi ma ni danaa am amee am lu ma wane lan ko soxla ñu andil la ko nañ ma andil plat alma bool ah xaaral tuuti kon ñu uh, wax ak nit ñi uh, di wax ne sëñ uh, Matar xasida borom tawfeex nga xam ne moom na ñu dalal fi jóge ba Touba nag ñëw fii si suñu plateau Senewood TV moom mooy laaj bool pour ñu jox ko ko gannaaw ba ñu ba mu waxee aslëf ci ki nga xam ne mooy Ablaye Diop xas donc euh, mu ngi jéem a def mbir yoo xam ne xëy na. di ngeen ko découvrir fii en ce mhm. moment en direct mhm. di ci invité euh, ay sëriñ neex ak ñëpp ñi nga xam ne pratiquement ñu ngi ñuy jamono ji mhm. mën ngeen réagir ah vraiment sëñ sëñ sëriñ Matar Xasida alors laaj nga bool andil nañ la bool bool bi ndax dafay baax wala du baax ndax da nga ciy tàngal walla du ci tàngal ndax dang ci ciy da nga ciy génne lu ñuy yéem la bool bi dama ci génne xaalis. xaalis waaw. da ciy génne xaalis. dama ciy génne xaalis. def gi ma koy def. Mhm. doonul ni dama am xam-xam. Mhm. doonul ni dama am ay jinne. Mhm. yaa ngi dégg. waaye dama koy def ci xamal la ni la man ba jàngi jotee dama jànge xam-xam te ci ñi ko jànge seen xam-xam nga bëgg a xamal daf ma doy xam nga xam nga ne xaas non bëgguma ngay tudd xaas ah, mais mën na lii moom tamit non non nga di ko tudd parce que kon day mel ni mën na ko parce que day mel kon man dama koy attaqué mm-hmm. te man sequñu lu ma koy attaqué mm-hmm. xam nga yéen yéen journaliste yi yéen xam nga ne mën na ko yéen yéen da ngeen di jaxase non non non du journaliste sax xam nga ne mën na ko waaw mën na xam na ne xaas mën na lii léegi ok tàngal ci kaas bi ndox nga euh, ko kaasu ndox Youssou ñu euh, bàyyi Youssou ñëw euh, jox ko kaasu ndox euh, suñu caméraman bi bu mënee bu mënee zoomé ñu gis ne bool bi dara nekku ci bu ñu gisee ne bool bi dara nekku ci moo nekk ni alors gis ngeen ne bool bi moo nekk ni alors bool bi moo nekk ni ñu gis ne dara daanaka nekk ci ñu xaar donc Youssou mu euh, andil ñu li nga xam ne mooy kaasu ndox euh, alors kaasu ndox bi nag buñ ko andee ñu gis ne euh, ñu gis li nga xam ne mooy sëriñ Maxtaar xasida borom feex bëgg a def kasu ndox bi gannaaw bañ la ko gis ne yaa ngi koy teg ci biir <laughs> alors sëñ Maxtaar xasida jël na kurus bi mu ngi mu ngi am lu muy wax mu ngi am ay ay baat yu muy wax ci xolam wala ci xelam mu ngi euh, mu ngi wàññi également ci kurus bi li nga xam ne ëf na ko kurus bi alors mu ngi waññi ba léegi di amal ay baat yu muy wax ndànk di euh, wàññi di wàññi di werd daanaka ba ngeen gisee ne kaas bi kaasu ndox bi jël na ko dugal na ko ci bool bi daf na ko comme ni ngeen ko gisee noonu sotti na ndox nga ko xool alors gis ngeen ko nii euh, bool bi sotti nañ ndox mi yaa ngi xool lu doy waar waaw sotti nañ sotti nañ ko leer na leen leer na leen waaw lii moom leer na mel na ni midi lii moom leer na alors jël na couvert gi tëpp na ko ci li nga xam ne mooy bool bi jëlaat li nga xam ne mooy kurusam di werde ndax ñu xool fal wane jëmee ak i gëtam sëñ Maxtaar xaside borom tawfeex ëpp na bool bi mu ngi ci mu ci liggéey bi mu ngi ci liggéey bi di leen fàttali ne yéen a ngi en direct en ce moment fii ci Senewood TV ci kéemtaan euh, yi nga xam ne sëñ Maxtaar xaside moom la bëgg a def mu bës bool bi bës na bool bi mu ngi sëgg si bool bi mu ngi bës bool bi mu ngi bës ah ñu ngi gis seen tool bi ndox maa ngi tuuru ah suñu plateau bi ndox mi tuur na ci ndox mi tuur na ci taal bi sëñ Maxtaar sëñ Maxtaar ubbi na bool bi. ubbi na bool bi. jëlal ah génneel sa bopp. ah li ñu gis de tungu ne di teew ñu nataal. génne ko mu leer bëgguma nga njatamal ma ci askan bi <laughs> ba jàng jotee damaa jàng. waaw dix mille francs la sëñ Maxtaar génne ci. Euh, ci nekk bu la neexee bu la neexee mën naa koo dolli ma doon cent mille francs. lu yéeme. waaw. Mhm. bu la neexee. alors ñoo ko gisandoo. ma dolli ko ma doon cent mille francs bu la mhm. neexee. Mhm. mais pour xamal la ni la yii doonu man doonu suma liggéey. yii ay mbir la yoo xam ni nuroo wut ak nit ki ñëw am problème nga lijjanti ko. yi ma ci yor bu jeex. boo liggéey bu ñu defee benn plateau. dix mille francs yi dix mille yu bees baax la wala dix mille francs yu kii la. non loolu moom concerné wu la yow ndax fa ndax am na fu mu jógee foo xam ne soo néew ci. ah fan la jógee bu ci xaabaabal ah. bëgguma bëgguma sa mbir lëndam. ah kon nag ñu bàyyi noonu. waaw boo liggéey. Mm-hmm. boo mm-hmm. ma defal la lu raw lii. Uh-huh. pour wàll la ni la xam-xam dem gëstu ci ko baax na. xam li xew. Mm-hmm. boo de yooyu yëpp nag man fi ma jàngee xam-xam. ñooñu seen xam-xam daf ma doy. ma gëm ko kenn mënu maa góondi mhm. sëñ Moustapha Dramé al Karim mhm. moom sëñ Thierno mhm. jàmbaar yi maam Thierno jooju nga xam ni sëñ maam Thierno moo seexal maam moo ma jàngal xam-xam ak sëriñ Seexuna Dem moom sëñ Jibril Dem waaw ak sëñ Moussa Diagne mu ci tawféex ñoom ñoo jàngal xam-xam. macha allah li ma ci yor. macha allah hmm? macha allah. du xaaj du jeex. Hmm. alors ñoo ko gisandoo mbokk yi gis ngeen euh, euh, kéemaan kéem mbirum bu bi nga xam ne moom la Serigne euh, Makhtar Khassida borom feex wan ñu fii ci plateau Senewood TV alors lii nag vraiment mooy mooy mooy kéemtaan di leen fàttali numéro yi nga xam ne pratiquement. moom ngeen di gis noonu si suufu écran bi mu di 78 107 66 73 76 577 74 34 Serigne Makhtar Khassida borom tawfeex mu nekk lu ama am solo ci wàllu xaalis bi nga xam ne pratiquement def nga kéemtaan bu génne ko ci bool boo xam ne gaan daanaka bañ la koy jox dara ne ko ci ndox nga laaj ñu andil la kaasu ndox nga def say. wér du sama domaine nag mais yaa ma dugal. waaw man lii lii lan nga lan ci lii pour wane sëñ sëñ Abdoulaye Diop xaas. ne non non nga yi ak ak yow muy def moom. bul ma bul ma comparé ak Abdoulaye Diop xaas non dama bëgg xam ndax yow moom moom mën nga yi muy def. non xam nga yow yaa jékki-jékki laaj ma de. Mm-hmm. yow man man boo ko waxumal dara. yaa ñëw ni ma Abdoulaye Diop xaas da ko wax dara néeg na. Mm-hmm. Abdoulaye Diop xaas man si yokku ñu la ma koy wax. Mm-hmm. musuma ko gis. musuma gis mais mais da xeeb li mu def. non xeebu ma ko. danga nga wax ma kon yow yaa bëgg preuve ba tax nga tudd ko. preuve waaw ma wan la ni la manit nag am naa vraiment preuve lay wane moom. waaw léegi nag ma wan la ni na manit am mhm. xam-xam am naa preuve bu ma woon preuve tey jii. Mhm. da nga ma sànni xeer. Mhm. am naa lu ma xam de. waaw fi mooy preuve fi mooy plateau preuve. plateau preuve nag sëriñ yëpp nañ ko nañ koy nañ ko jagleel maanaam ñi nga xam ne am nañ xam-xam wala jàpp nañ ne askan wi jàpp nañ ne am nañ xam-xam ci wàllu wi ñu yëngu ñu dalal ñu mën a waxtaanee ak gindi nit ñi nga xam ne pratiquement ñoo ñu seetaan fii ci Senewood TV di leen wax ne plateau yi mel nii di ngeen ko am ak Sista Adji également wala sax ñeneen ñoo xam ne su ma ko su ma fi nekkul pour def ko ñoom dinañ taxaw pour euh, def ko fii ci Senewood TV ak Comet Radio le son qui vient de l'espace alors euh, hmm? Hmm. alors ak Sista Fa également ñu koy euh, ñu koy nuyu alors di leen fàttali ne mu nekk mbir yu ama am solo euh, alors di remercier toutes les équipes de Senewood TV les caméramans les preneurs de son euh, l'équipe dirigée par Youssou Serigne Neex di def liggéey bu am am solo euh, di nuyu ñoom Mamita di nuyu ñoom Awa Khady tout le monde bu ñu limee dañuy juum mais ñëpp rek ñu ngi ci ñu ngi bootu ci ginnaaw Youssou pour liggéeyu kër gi gën a jëm kanam di ko encourager di ko di ko wax ne euh, am na suñu confiance totale am na suñu suñu suñu considération totale pour que kër gi également gën a. El bool bi yaa ngi koy xool rek. ah, ah man xaalis bi xaalis bi sëñ bi man ma daf ma daf ma mujjee yëpp. <coughs> yaa ngi koy xool rek bi moom daf ma daf ma mujjee yëpp xam naa ñi ñuy seetaan également certainement. Euh, yéemu nañ ci xaalis bi nga xam ne mooy dix mille francs yi ak fii jamono toll aussi également mm-hmm. weeru sore bi ak tabaski bi ak feet yeeg yeneen ak yeneen mm-hmm. ngay def yu mel ni xam naa moom du dara nag. Euh, du dara du dara. si téléphone moom dina exploser moom. du dara xam-xam booy jàng la rek comme ni gars yi jàng xam-xam rek kenn du la lëndëmal ëllëg nga xam euh, ne est-ce que bii xaalis bii bu beex bu bu maanaam bu bees. maanaam ku ku ku siy parce que gars yi tamit ñu doon wax toog muy dox dafay jeex. wala tëdd muy dox dafay jeex. est-ce que bii bokkul ci toog muy dox. man ne bu ma génnee léegi damay jaar ci dibiteeri bi. Mm-hmm. waaw am ci ndawal bu baax. Mm-hmm. am na solo. adduna kenn ku yaa xam na tojee sa bopp jinax. Mm-hmm. ñi day contesté boo ñàkkee dépasse duñ la ko jox. Mm-hmm. Mm-hmm. am na solo ah dix mille francs yaa ngi noonu ah dix mille francs jot na fi génn xam naa dix mille francs moom du jóge ci plateau bi xasee génn est-ce que lekk. ah loolu tamit boo ko defee pare da nga war a traiter ndigal da war a joxe ndigal pour ñu jëfandikoo bul xam daal wala balaa loolu ganaaw sinon sinon leneen da si leneen da siy juddu. El Malick guddi na de. <laughs> en tout cas mbégte la woon vraiment ñu ànd ak yéen ci plateau Senewood TV le meilleur de divertissement intelligent man sama tur Del Malick nekk réalisateur producteur de contenu fii ci Senewood TV di leen xam ne liggéey bi euh, ki nga xam ne mooy Youssou muy manager général studio bi dina continuer di ko wéyal ak euh, ñi nga xam ne ñoo fi ne euh, sëñ bi ñu ñu bàyyi la nag nga nga. nga tàggatoo uh, waxkat yi nga xam ne pratiquement moom nga bëgg a tàggatoowe te du ñàkk egalement nga ñëwaat ci ci plateau yu mel nii mm-hmm. xamale nit waxtaan ak nit mm-hmm. ci ci ci ci ci li nga xam ne moom nga yëngu mm-hmm. waaw maa ngi sant yàlla moom mi ñu may kàttan bañ tàmbali ci jàmm waaye moom may ñu sago itam ak kàttan ban àggale ci jàmm alhamdulilah alhamdulilahi rabbil alamin ala kulli xanaa di ñaan yàlla ci màggam ga ak tedd gam mhm, màgg na ñu ngi koy màgg na ñu ngi koy ñaan ñu ngi koy ñaan ci daraje yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan ci barkeb Cheikh Ahmadou bàmba yitte ju waaye ñu andi ko ci nun daal mhm. ñun mënuñu dara xamuñu dara mhm. yàlla mooy faj ajooy jaam yi ku ñëw ci nun daal wax ñu soxlaam yàlla lañu koy ñaan waaye nag man ma koy ñaan ci daraje yonent bi di ko ñaan ci daraje borom Touba. Mhm. ku sa soxla narta faju mhm. maa yow bu nu gisante mhm. saa bu ma jullee dama ko ñaan koo xam ni daal am nga njàqare ba sa xel jëm ci man boo ñëwee boo ñëwee maa ngi ñaan yàlla mu faju koo xam ni boo ñëwee ci man saaju du faju maa ngi ñaan yàlla bu la si ci man jullit nag am na droit ñaan alors fan ngay faral di nekk gannaaw Touba est-ce que mm-hmm. yaa ngi dakaar mm-hmm. wala ka ngay faral di nekk dakaar wala Bargny mm-hmm. sa adresse yi nga xam ne pratiquement nit ñi euh, buñ la bëggee gis fan lañ lay gisee exactement ak euh, ndax nekk nga sëriñ bu naqaree jot parce que am na ñoo xam ne également pour nga jot leen si tout un problème mën nga yenn deux jours trois jours di leen woo seen seen portable bi sonné wax ñu un peu na ñuy def loolu ñi lay seetaan naka la ñuy def ba jot si yow nga mun leen euh, dimbali ci ñaan yi nga xam ne ñu ngi koy sàkku ci yow. waaw man moom képp ku ma sama téléphone bu fekkut ma jàpp mhm. dana la jël mhm. lay sa yitte danañ ko partagé waxtaane ko mhm. man nag bu ma xasee ba engagé wu ci mbir du ma ci dellu gannaaw moo tax balaa ma ci dugg dama koy waaj am na ay yoo xam ne nag dama koy nekk Touba sama kër Tawfekh Bousso waaw yan jour la mm, ci mel ni alxames ajuma ak mercredi ñetti fan yooyu yaa ngi Touba. waaw ak euh, mardi. ñeenti fan yaa ngi Touba. parfois it nga ne fa nit soxla la urgent urgent. Mhm. nga ñëw Dakar bu ñëwee Dakar nag bari ñi laay nekk ci arrêté bi. arrêté bi waaw ba wàccee ci yooyu rek. di nuyu waa Bargny ñëpp parce que Bargny sama sama kër maam lay gaal waaw Jakarta yi koo nii sëñ Maxtaar Xasida rek. moo indi mhm. la fi ma nekk. Mhm. waaw am na solo.